salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam ça va. yaa ngi ci jàmm. waaw je vais très bien. yëg nga ni couvre-feu day commencé tey. waaw yëg naa ko moom vraiment nekk loo xam ne bett la. mu nekk loo xam ne. lu ma bett la. Ah, ñun kat amuñu feet ñu ñëw kii wu ñu ñuy confiné waat c'est un peu kii quoi mooy loolu personne ne comprend en fait. et ce qui est désolant on nous confine la nuit. et le matin comme ça vous voyez y a tout le monde dehors on se rassemble et tout ça y a les tout ça. c'est un peu incompréhensible quoi. léegi yow noo nar a dundee couvre-feu bi. ah wàcc liggéey dem ñibbi tëdd nelaw rek. que faire taluñu ñu dóor tamit te policiers yi dañuy dóore. léegi yow ànd nga ci ànd nga ci couvre-feu bi. ah bu ànd ak ñàkk ànd mënuñu ci dara mu borom dëkk bee ko décrété kay ñu ànd ci li mu bëgg rek. yëg nga ni couvre-feu day commencé tey. waaw waaw loolu dégg naa ko ba démb si Macky waaw couvre-feu bi moom dajaloo bi lan war a aaye ba pare couvre-feu bi amul benn njariñ dañuy liggéey wàcc dem tëddi 19h ba 5h du matin ñi ñaa ngi nelaw kon couvre-feu bi bu amee jaruñul dara jaruñul dara marché yi xam nga oto yi mooy loolu fu ne marché nga fa xew-xew yi loolu dindiwuñu ko couvre-feu bi kay kon jaruñul dara ñu koy def. yow daal àndoo ci. man ànduma parce que lii mooy indi feebar bi dajaloo bi marché yi fu ne am marché nga fa te kenn mënu koo dindi xam nga. yow noo nar a dundee couvre-feu ah, xanaa waxtu bi jot rek ñu dem tëddi parce que mënuñu si dara président ko wax du waaw. bu jot merci beaucoup. yëg nga ne couvre-feu day commencé tey. waaw yëg naa ko démb si guddi bi ma wàccee. noo ko nar a dundee. foo moom amul benn sens ni ñi ñu ngi liggéey ñun dèjà ñun receveur tataay bi ñu wàccee ba dem bay dem di verser ji balaa ñuy ñibbi suñu kër yi ñun moom 22h dina jot wala wala 23h amul benn sens wala feebar bi moom guddi lay dox. wala feebar bi. guddi lay dox xanaa feebar du dox bëccëg. lu tax nga wax ni feebar bi guddi la dox. ah damaa xam ne bëccëg bi ñi ñëpp ñi ngi dem di ñëw di dugg di génn oto bi day fees del dégg naa ko de. noo ko jàngatee. ah mu moytu rek. ànd nga ci wala. waaw ànd naa si moom. Ah, yow moo tax nga ànd ci. ah daa parce que feebar daa muy yokk rek rek moo tax mu ànd ak noo gisee sénégalais yi nga xam ne d'accorduñ ci couvre-feu bi. Ah, loolu kay moom jàngatu boobu kay xamoo si dara naa war a jàpp rek mu ñu ma moytu bi ba affaire bi jeex rek ñaan yàlla rek affaire bi jeex waaw. waaw yëg naa ko. noo koy dundee. waaw def li ndigal wax rek waaw jël samay matuwaay rek teel a pare sama liggéey dugg sama kër waaw. obéir nguur gi rek waaw loolu rek laa ko gisee de. kon daal ànd nga waaw ànd naa ci moom ànd naa ci ñu xool rek lu muy lu muy joxe daal waaw. waaw mooy lu muy joxe. waaw dañuy xool ba xam am na njëriñ wala amul njëriñ waaw ñoom buñ ko defee buñ demee ba ci kanam dañ xam ba xam am na njëriñ wala amul njëriñ soit dañuy continuer ou bien dañuy delloowaat affaire yi nu mu meloon. loolu rek la. waaw maa ngi koy yëg démb dinaa information bi démb waaw. yow ko nar a dundee. ah ma comme d'habitude rek comme couvre-feu moom nekku fi lu bees te miinu nañu ko dina ko comme ni ñu ko dundee woon rek comme président moo ko décrété te lu mënut a ñàkk la te yaakaar président lépp lu mu def lu baax ci Sénégalais la quand même dañ ko respecté rek jëm ko respecté li ñu daloon au début bañ ñoo dalaat rek loolu loolu daal la si gis sama waaw. ah no xam nga loo xam loo xam ne la même boo si ëndu day am boo si ëndu tamit dañ koy def ñu ànd si rek. lan lan moo ñu daloon au début mu bañ ñu dalaat. maanaam comme au début nga xam ne respecté wuñ ko woon au début Sénégal yëpp gis na ne respecté wuñ ko woon nit ñi dañ daan dox ba ay après après couvre-feu bi ay 22 heures 23 heures ñu leen daje ñoom di ku si bañ daal ñu dóor la te comme day am balaa 21 heures nga toog sa nga bañ a génn sinon bu la dóoree yaa gaañu te du mujj fenn ñu respecté ko loolu laa laa gis. mais couvre-feu bi moom man franchement ànduma ci quoi parce que man gisuma ne moo fiy jëlee feebar bi feer bi dama gis ne dañoo war a tengalaat masque yi moo tane couvre-feu bi parce que Sénégal tey boo xoolee tali bi tali dañu xat nañ xat boo xamante ne même boo wàccee cinq heures sax boo boo waree àgg lu mel ni ay Kër Massar wala Tëngéej affaire yooyu noonu bala nga àgg embouteillage bi est-ce que heure boobu du la fekk ci yoon bi te heure boobu bu la fekkee ci yoon bi tamit loolu beneen affaire lay doon ndax booy seet tali dañoo xat ba pare bus yi mooy loolu. bu fekkee ne nit ñi départ nañ heure boobu 21 heures bu la fekkee ci yoon bi loolu dina doy waar trop waaw moo tax gisuma ne couvre-feu bi am na njëriñ quoi. yow lan nga gisoon ne moom la ñu war a def tey. ah ñi takk masque rek moo gën parce que tëli dañoo xat même man mii tey su ma wàccoon tey 19 heures tey war a ñibbi Tëngéej wala 6 heures embouteillage bi autoroute bi day xat kenn ku ne gis na tali yi bu nit ñi jógandoowee day xat te tey fi mu toll nii 6 heures ñëpp daw ñibbi seen i kër day metti quoi man gis naa day metti trop. léegi yow tey soo doon wax président di ko ñaan lan nga koy ñaan. ah man daal bu ma doon wax ak moom dama koy ñaan ne ko maanaam nit ñi takkaat masque yi xam nga respecté mesures barrières yi quoi man loolu laa gis. dañu dakkal couvre-feu. waaw dañu dakkal couvre-feu bi couvre-feu bi moom gisuma ne moo fiy jëlee feebar bi quoi waaw loolu laa gis. waaw ñu ngi koy dégg de waaye ñu ngi ci santaat bu baax euh, di ñaan rek lépp luñ ci kii rek yàlla nañ ci yàlla dimbali rek ba lépp luñ ci ragal duñ ko ci gis. yow ànd nga ci ah, couvre-feu bi. moom macha allah nekkul loo xam ne gënal nañu waaye xëy na comme mënta ñàkk def nañ ko it nañ ci sant yàlla rek gën a yaakaar suñ bi rek ñun moom suñu kilifa mooy suñ Mountakha lu mu ñu digal rek ñu ngi ca. est que yaakaar nga ni couvre-feu bi mën na fi jëlee feebar. feebar bi moom li suñ Mountakha wax rek a fi ne suñ Mountakha nee na feebar bi jaam la boo xam ne yàllaa ko fi wàcce waaw. jaam jooju nag mission lay dox saabu mission bi motee mu ñibbi waaw nañ ko jàppe noonu ñun ndigalu suñ muntaxaa rek lañ fi nekkee waaw loolu moom ñu ngi koy bàyyiwaat xel bu baax ndax suñ muntaxaa mooy suñu lépp comme ni mu ko waxee noonu rek noonu lañ ko jàppee ñun jàpp nañ ne feebar bi jaam la comme ñun waaw ba tax na it ñu ngi koy bàyyi xel it nag ñoom nuñ ko bëggee rek ñu nga ca waaye nag ci ndigalu suñ muntaxaa rek ba léegi ndax mooy suñu kilifa te ak ëllëg nag ça sëñ bi. ça va bien naa yaa ngi ci jàmm. ça sant bu baax a baax. yëg nga ni couvre-feu day commencé waat tey. waaw dégg nañ ko dégg nañ comme ni ko ñëpp déggee rek dégg nañ ko démb ñëw ci ngoon gi ñu ne président déclaré euh, waxaat na ko waxaat ne dañuy def couvre mais comme ni mu ko waxee rek xam naa dañuy dañuy dañuy ànd ci ndigal li rek comme que feebar bi moom moo tax mu mu mu mu mu mu joxe euh, ndigal loolu te yaakaar naa lu fi jëlee feebar bi rek la bëgg. waaw dañ ci ànd ak moom rek teel a wàcc teel nañoo xëy dañuy teel a wàcc rek comme heure bi dafa changé 21 heures lañ wax dañuy fexe ba 18 heures ñun ñëpp ñu wàcc rek bu ko defee kenn ku nekk teel a àgg sa kër boo ko defee ñëpp am jàmm quoi. noo ko nar dundee yow. waaw comme ñu ko Sénégal yëpp di dundee rek xam nga comme ko feebar bi moo tax ñu ngi takk ay masque xam nga bu fekkee comme marché lañ nekk nii yi ci bëri mu mënuñu koo kii parce que il faut que ñuy jegeyantoo mais nañu takk ay masque di di di bàyyi xel tamit feebar bi. xam rek di ko bàyyi xel bu baax a baax di fagaru daal. wa rahmatulah. yëg nga ni waaw yëg naa ko biig si guddi waaw. waaye nag couvre-feu bi moom comme ni ko président bi wax rek ñu defee ko noonu waaye nag dana xaw a métti ci askan wi moom. ndaxte Sénégal wax dëgg fa euh, réewum jàmm la comme réewum jàmm la nag moom ni ko Sénégal ni ko président bi waxee noonu lañu koy defee. waaye nag moom nit ñi ñu respecté ko rek te policiers yi tamit li ma leen di ñaal mooy ñi yërëm doomu aadama yi ñu yërëm leen kuñ ci jàpp mu xam ne ñu xam ne maanaam léegi kii nii dafa xat ndigal li ñu ko te ko ci yoon te bañ koo door bañ ko def dara bu fekkee nag da doon dem nga xam ne bii maanaam euh, yàlla moo dogal mu fu mu jëm àggu fa te heure bi na buñ ko jàppee ñu yërëm ko rek ndaxte Sénégalais moom yërmaane moo fi moom lañ xam kon policiers yi ci jàpp dañ dimbali laay war soo rek ñu yërëm la loolu laa leen di wax policiers yi dañu yërëm doomu aadama ci jàpp xam ne bii dafa sart xat ndigal li nañ ko teg yoon te bañ koo dóor buñ ci jàpp nga xam ne bii xam nañ ne xel da doon dem fan jëm àggu fa tey heure bi jam jot na tamit buñ ko jàppee ñu yërëm ko rek man loolu laa leen di ñaan wasalaam. yow noo nar a dundee couvre-feu a ah, xanaa def ko ni ko waxee rek def ko ni ñu ko rek bu heure bi jotee ñu wàcc dem ñibbi fexe ba heure bi moom duñu fekk àll bi su dee dañu dem marché marché boo xam ne sori na bala heure bi jot ñu fexe wàcc dem ñibbi rek non donc lañ ko dundee. yëg ngeen ne couvre-feu bi day commencé waat tey. nañ ko. Ah, noo ko jàngatee d'accord nga ci wala ànd nga ci. ah on est obligé franchement parce que c'est l'État ci l'a décidé ainsi mënuñu lu dul accepter ko dox suñu soxla avant bi c'est juste ça pour être en règle avec la société. ko nar a dundee nag sa kër. ah xanaa toog vu que je étudiante gën a concentré ci samay études waaw daf may jox largement le temps jàng waaw. nekk en famille aussi c'est merci merci beaucoup. madame ma ñëw. bien sûr dundee. ah jàmm ak salaam rek lu baax la parce que feebar boo xam ne nii kenn xamul lu mu doon yàgg fi loolu tënne du fi jóge c'est mieux ñu def ko nit ñi tam topp ndigal yi rek ndax yooyu daal moo gën parce que loo xam ne nii daal bu ñëwee lor la lor keneen nga moytu moo gën fagaru moo gën faju ci gàttal waaw. kon yow daal ni ñu déggee ne ànd nga ci ku. ànd naa ci kay waaw parce que jàmm moom ci la lépp xëcc boo wérul loo mun a def doo mun def dara kon mieux vaut nag ñu xalaat suñu santé daal. jàmm sant yàlla ba alhamdulilah yëg nga couvre-feu day commencé waat tey. waaw yëg nañ ko kay ah. waaw. la leen ko jàngatee. waaw ah, ñu bu ñu seen ñu dindi ko ndax day yàq suñu liggéey bu baax a baax waaw. nan lay yàqee seen liggéey. waaw ah, dañuy dañuy teel a waaj te teel a waaj bi arrangé wuñu dañuy dagg suñu par exemple bu ñu def 4 aller retour 3 rek la ñuy mën a def dañuy dagg suñu xaalis. nga bu la 20 heures mënu laa fekk ci yoon bi balaa ngay egg sa kër 21 heures jot te 21 heures lay commencé moo tax léegi boo defee 3 retours 6 heures fu mu jotee da ngay wàcc. léegi yow suñu dindi woon couvre feu lan nga doon jox eh, comme conseil ñu def loolu te ñu bàyyi couvre feu bi. ñu def ko ah ñu jéem a respecté mesure barrière yi rek tax masque yi comme ni ñu koy waxee di raxasu ak gel antiseptique loolu loolu lañ wax kay ñu def ko rek. an sa masque ya. ñu ngi mayor tax nga sa loxo te ko. tàng salaamaaleykum sëñ bi. salaam sa waa na nga def. yaa ngi ci jàmm. jàmm bu baax. yëg nga couvre-feu day commencé tey. yëg naa ko day commencé kay. mais arrange ñu bëri nag am na yoo xamante guddi la doon liggéey mais léegi ku liggéey guddi bu ñu defee couvre-feu bi léegi vingt et une heures loolu arrange ko yor liggéey gud am na yoo xamante liggéey bëccëg lañ yor am na yoo xam liggéey guddi lañ yor mais ñu liggéey guddi wax dëgg yàlla mais lépp après. barrière yi masque yi ci la njëkkee an sa masque. sa masque moom sa mu ngi nii daa xaw a tuuti moo tax mais fu mu toll damay takk max mais saa su ma toogee rek daal di dindi max bi mën na tuuti comme ça dafa tàng loolu kese la quoi. yow daal soo sañoon ñu dindi couvre-feu bi. couvre yokk temps bi sax bu ñu ko dindal de 23 heures yooyu au moins pour ñu arranger gars yi di liggéey guddi quoi am na ñoo xamante ne ñu liggéey bëccëg ñu liggéey guddi côté boobu laay waxee quoi. de 23 heures. à partir de dina baax ci liggéey guddi mais ku dul liggéey guddi nag moom vingt une heure arrange wax dëgg yàlla ak xamante ne guddi bu guddi la ñuy jaay reer mais vingt une heure client di génn di génn jënd reer mais vingt une heure nag balaa ngay dem jënd reer lan lay jàpp ci yoon bi nga am gàllankoor am na xamante mënuñu togg seen seen seen seen kër comme célibataire lañ il faut ñu dem génn mën a jënd comme ça bu ñu dee vingt une heure balaa ngay dugaat sa nekk vingt une heure la ci yoon bi tase gars yi jàppala mu ne ah, da ngaa respecté barrières yi fekk nag da ngaa génn pour jënd reer loolu moo tax dafa gàtt quoi temps bi dafa gàtt waaw loolu laa gis. noo koy dundee sa kër nooy dundee ko fa bi sa kër. waaw ah, en tant que dañuy affaire jëf ki léegi règlement mu ne vingt et une heures après nga dugg man damay teel préparé dugg sama nekk jàpp sama njaamur seetaan samay télé respecté loi bi loolu laa gis quoi. ku wu njëkk bi noonu laa koy doxalee mais jàmm rek laa ci gis mais saa yi moom arrangé li liggéey guddi gi si loolu laa calculé quoi. waaw gis naa ko kay. noo ko jàngate waaw mais comme que état bi moom mooy moom moo ñu moom ñun ñëpp moom moo moom mooy njiit ñëpp. te yaakaar naa ne dafa dafa décrété wul couvre-feu pour son propre intérêt quoi pour intérêt général la. nañ jéem a adapté wu ak loolu rek jéem a xob kii topp intérêt général bi xeex ñëw ñu ànd xeex mbas mu jeex quoi loolu laa ci malgré métti na trop xam nga xam nañ mais nag comme benn laps de temps rek nañ jéem a yaru jéem a respecté mesures ak yooyu yëpp quoi ñu def ko ci. ne nañu jéem a yaru yaru bi lan la bëgg a wax non yaru bi parce que quelque que soit alpha xam nga ñun ñëpp ay jeunes leen te fougue de jeunesse da lay topp xam nga di bañ bañ te état kenn mënul xeex ak moom te mënoo ñëw di revendiquer ne sénégalais nga ba pare di saaga sa institution di ko doy dal boobaa doy daloo kii président doy daloo institution mais saw yi bopp nga doy dal ndax moom moo ñuy représenté fu mu ci toll ñu ànd ak moom ñu ñàkk ànd ak moom moom lañ moo ñuy représenté ak ñun ñëpp nekkuñu dañoo dañuy am ay divergence mais tamit nañu respecter suñuy institution comprendre nga te civisme dafa manqué Sénégal comprendre nga ñun jeunes yi commencé ko ci man ak samay morom ak ñëpp dañuy taxaw suñu amee suñ suñ ko gis suñ ko gëmul suñu ànd la moom dañuy taxaw di on se permet di saaga di wax lu ñu neex affaire yooyu te suñu saaga kuñ mun ci saaga suñu bopp lañu saaga parce que suñu institution lañu saaga parce que ñun ñëpp ay quarante nationale sénégalaise lañu yor ay nationalité sénégalaise kon waruñu mën a saaga kii foofu laay waxee quoi léegi yow noo a dundee sa couvre-feu. waaw comme ñëpp ah malgré métti na parce que am na ñoo xam ne guddi gi la ñuy liggéey pour si lañu yaakaar pour dund seen njaboot mais tey jii dañuy xool ne avant Covid bi di dugg kenn jé jékki-jékki la ne def couvre-feu dafa am benn contexte bu taxaw malgré que day métti si ñun ñëpp quoi mais nañ ñu xam ne dañ jéem a adapté wu ak moom nguur gi tamit xam ne tamit yorul ay xar quoi. parce que nekkul ne da ngay yor ay population di leen xont quoi comme ni di leen jox lekk ak la yu noonu on n'a pas besoin de cela. na créer benn climat boo xam ne ñiy liggéey guddi gi dinañ ci mën a yëg seen bopp ñiy liggéey bëccëg bi yëg seen bopp kenn bañ ci loru parce que moom loolu mooy premier kii rôle régalien am kii bu mu war a def mooy loolu noonu xam nga équilibrer affaire yi affaire ñu ko ne yëg seen bopp voilà. mais yow ana masque bi ana masque. masque baa ngi nii quoi. lu tax nga dindi. masque bi loolu léegi laa ko dindi taxaw nii quoi mais tout le temps damay yor sama masque ak yooyu noonu. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi yaa ngi ci jàmm. sant bu baax a baax. yëg nga couvre-feu day commencé waat tey. waa dégg naa ko démb de. Ah. waaw. noo ko jàngatee. ah dama yaakaar ne dafa normal quoi. ndax boo gisee ne corona mi ngi nii bon mi ngi ñëwaat fii tey fii comme sama genre ñi respecté wuñ euh, lii nekk di wax defuñ ko fu mu jaar def couvre-feu parce que bon corona bi on a vu que muy commencé waat jëlaat alluram pour barrer ko daal il faut ñu gisaat yenn mesure parce que man daal man daal man yaakaar naa baax baax na daal baax na pour le moment. yow noonu nar a dundee sa couvre-feu. bon dina métti mais on gère quand même on gère parce que situation moo waral quoi mais xam nga ne bon dara moo tax ñu ne ñu ñu jéem a confiner parce que corona bi moo tax mais du intérêt du intérêt ñi ñi itam c'est collectif ñëpp a ko bokk quoi dama yaakaar ne couvre-feu moom bon métti na dañ ko jéem a xam naa ne vingt heures moom teel na moom vingt une heures du moins vingt une heures moom teel na si couvre-feu mais nag bon on va gérer quand même. Ah. léegi ana sa masque yow. sama masque mi ngi sama poos. nga def ko sa poos sax kooku. non instant yii dama ñëw fii léegi léegi laa ko dégg damay damay damay liggéey damay fóot nii et puis ñàkk bi mooy loolu moo ko takkee fii ay waaw et puis fii naaj bi dafa tàng quoi. merci beaucoup. ok. waaw yëg naa ko démb si guddi mais bon ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy naqarlu daal. franchement parce que ñun dañuy liggéey guddi gi dañuy liggéey presque ba 22 heures léegi bu ñu naree wàcc 20 heures aussi du ñu voilà. yow gis nga ne couvre-feu bi mën na fi jëlee jàngoro. bon euh, pour moi moom couvre-feu mënu fi jël jàngoro gi parce que boo xoolee bëcc bi nga xool marché bi noonu mel da nga xam ne munu fi jël jàngoro gi waaw. yow boo doon joxe ay digle yan digle ngay joxe. bon ñu respecter mesures yi bon euh, ku nekk takk sa mask bon euh, respecte fi nga nekk sa place nga xool ni ngay accueillir clients yi aussi waaw. nga couvre-feu bi day commencé tey. si si j'étais au courant bi. noo ko nar a dundee. ba de toute façon man fi ma nekk moom génne bi bariwul su ma génnee dem boutique la wala dem école voilà aw ma soxla bu bëri ci biti voilà. kon nga yow ànd nga ànd nga ci couvre-feu. ah. en fait euh, maladie bi si boppam man j'y crois pas gëmuma ko daal damay foog ni gars yi dañuy def leen neex rek mais maladie bi moom moom carrément nekkul fi amu fi moom ça n'existe pas man gëmuma ko daal. ah yow foo teg ni amu fi nekku fi. ah c'est-à-dire que corona am na yenn maladi yu ko gën a grave tel que cancer ay AVC tension te ñu ngi rey nit yi chaque jour que jëfee donc dafa y a des choses daal yu nga xamante ni moom raison nanguwu ko daal yow daal da ngaa jàpp ni corona amul ci réew hmm, man j'y crois pas. Hmm. kon yow d' pour couvre. bon couvre-feu bi man sonalu ma de trop parce que comme ni ma la waxee rek sama génn c' est durant la journée pour dem à l' école jeex na si bu ma duggee suñu kër après aw ma lu may def ci biti presque voilà. yow gëmoo corona bi moo tax ma masque. Euh, masque bi mi ngi si biir saak bi vraiment. li muy def ci saak bi da nga war kaa takk. bi en fait euh, damay empêcher ma respirer carrément quoi. waaw bu ñu nee cëpp rek ma génne takk. ñan suñu nee cëpp. Euh, force de l'ordre bi. ñu ne cëpp rek pour di exiger masque yi rek ma génne takk. soo leen gisul. su ma leen gisul moom je mets pas le masque vraiment. ça m'empêche de bien respirer. ah c'est merci ok au revoir. ça bien merci. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. nga couvre-feu day commencé waat tey. yëg naa ko kay. ànd nga ci wala. ah. ànduma ci de ndax ñun dañuy soxla ay révision guddi geeg yooyu et que dañuy bëgg di dem suñu école guddi gi comme li ñu mën am ci école bi duñ ko mën a am ci euh, biir kër gi parce que mën nga toog ci kër gi di réviser papa woo la yónni la wala yaay ñëw di la woo di la yónni tu te man bi boo demee ci école bi di ko fa def kenn du la déranger et tout voilà. kon moo tax arrangé wu. arrangé wu ñu moom wax dëgg yàlla. léegi yow kon noo ko nar a dundee sa biir. ah toog rek comme que Macky nee na ñu toog dañuy obligé toog rek voilà. réviser ci biir réviser ci biir kër yi ba ba peut-être bu ko arrêté ñu continuer demaat école waaw. léegi ana masque bi. masque bi. bi <laughs> tax nga tekki ko. dama xawoon tàng en plus dama am dama am ay bronchite su ma ko takkee damay fàtti moo tax damay obligé parfois ma koy wàccee. waaw j'étais au courant tey laa ko yëg de tey laa ko yëg bi ma demee classe laa ko yëg. léegi pare nga wala. couvre-feu bi ah noonu nu mu ko waxee kañ noonu lañ koy defee vu que moom mooy président bi kañ. ay décision am kañ dañ koy appliquer rek. mais d'accord nga ci ànd nga ci. waa vu que suñu pour suñu santé la kañ. waaw <laughs> tamit dinañ ci d'accord. léegi noo ko nar a dundee. bon ça sera très difficile nag dina métti torop parce que tàmmuñu ñu ñuy indiqué ban jour la ñuy tëdd ak heure yeeg yooyu noonu en plus vingt vingt et une heures tamit dafa xaw a teel mais que faire mënuñu ci dara. d'habitude ban heure nga daan tëdd bu fekk bu dul couvre-feu maximum 22 heures parce que actuellement nii ibbi nañ étudiante la waaw 22 heures dina fekk ma tëdd mais par rapport ak ñeneen ñi nga xamante ne nii comme dañuy def commerce wala yooyu noonu du ñu mën a teel a tëdd. waaw couvre-feu bi moom instant ñun ñu ngi koy métti bu baax amay dégg parce que instant yii nii lii ñun xamuñu ko bak Serigne Touba waaw parce que ñun ni ay couvre-feu ak yooyu noonu loolu xama rek jeex ba pare ay feebar yu ñuy wax ay feebar yi feebar dara amu fi waaw affaire bu amee ñun nañu rey ñu ay taalibe Serigne Touba lañ amul leen lu ñuy tëb wala lu ñuy ragal bàyyi yàlla ak ñu bàyyi nañu liggéey daan seen doole waaw kon nañuy jël gaal léegi dem mooy dugg si géej gi. ah suñu arrêté wul loolu jaru sax wax Mbour laay duggee Mbour village waaw. Ah. fan nga teg ni feebar bi am. non dama xam rek te parce que nit ñaa ngi circulé dëkk bi di dox naaj di dem di ñëw. bilaahi waaw. isaan ni bu amoon far nañu yàlla bàyyi bilaahi ça va sëñ bi. sant Serigne Touba rek. loo gisee couvre-feu bi. oui ma couvre-feu bi kay instant kay Macky Sall daf ñuy yàpp. nan la leen yàbbee. ah yoo xam nga ne Macky Sall lu muy def moo ko tey waaye gaan. Ah, lan la tey. ah tamit couvre-feu boo xam ne feebar boo xam ne ñun kenn feebarul boobu ba léegi ñu ngi laaj couvre-feu ñun gisuñu couvre-feu boobu ba léegi ñu ngi laaj instant yëpp corona ñun gisuñu corona boobu ba léegi. xoolal ma tubéy bu weex gaan. léegi léegi yéen loo leen loo leen di loo leen di rapproché. noir waaw Macky Sall kay mu bëgg mu bàyyi ñu ko instant ñu ñu job quoi instant ñu dañoo bëgg liggéey instant yi ñun taluñu instant bu ñu def ni dafay mel daf ñuy wàññi suñu doole instant yi fu mu toll nii gars yi commencé nañ daanu instant yi gars yi dañoo mar dafa war a bàyyi gars yi tamit liggéey tamit instant yi fu mu toll nii gars yi bu leen bàyyi ñu toog ni gars yi fu ñuy jëlee mooning ñoom instant ñoom nañ ñoo yor ñun instant ñun yoru ñun instant dañuy jaayante pour mën a yor moo tax instant yi boo yëpp di déquinse mooy loolu noonu lan mooy déquinse jaay pare boo jël ay alalu jàmbur rek yooyu wala tamit dugg si gaal yeeg yooyu noonu loolu lépp lii moo ko waral quoi waaw dañu bàyyi ñun ay jeunes lañ amoon sàcc ñu fenn ñu bàyyi ñu liggéey nice mooy loolu ku wàcc dem sa gaale dallu ji moo gën tamit fii ay ay ndàqanteeg fii ak lii ak amul sens quoi ak Serigne Touba. salaamaaleykum maaleykum salaam. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla ak yonent bi gërëm sëñ Touba bu baax sax. yëg nga couvre-feu day commencé waat tey. waaw yëg naa ko sànq waaye ñun loolu jaaxaluñu ndax ay alalu boroom Touba lañ ñun moom feebar dañ koy dégg rek mais xamuñu ko gisuñu ko. dañoo war a bàyyi ñu liggéey jàpp suñu ñaam ndax sàcc ñu fenn ñu dugg ñu suñu yoon nekkul lii nii ñuy liggéey tey jii ñun su la ñuy yaakaar mën a dimbali suñuy waajur kon président daal dañuy ñaan mu bàyyi ñu liggéey parce que ay affaire de couvre-feu daf ñuy sonal rek indalaan yeneen gàllankoor gis na mi ngi ko fi njëkkee def nu jeunesse bi def waaw kon boog nañu bàyyi ñu liggéey jàpp suñu ñaambur nekkaat suñu tranquille quoi ñu loolu la ñuy wax waaw ok kon yéen gëmoo leen ne corona am waaye corona amul yow daa rey sa maam daa sa maam amul fenn fooy dugg ñu ne la diw fii corona moo ko kon corona amul kon nañu bàyyi ñu nekk suñu salaam. kaay ñuy wax ci télé yeeg ak nombre da moo non man mënu ma koo gëm no no mënu ma koo gëm ndax fi ñuy wax kaa yëpp boo xoolee ba ci biir boo fa demee dañ naan la fii mosuñu fee gis nit ko corona kon man mënu ma koo gëm man sama bopp laa gëm lu jógeel fa yàlla wàcc si ñun ñi bari fi doomu aadama yi ñun gëmuñu ko ñoom ñoo créé seen feebar na wéetoog ñoom wasalaam. léegi seen couvre-feu nag. seen couvre-feu ñoom la teewul nañ nañ respecté seen kàddu quoi ndax boo ko deful ñu maltraité la jàpp la duma la yaa ma gën a xam leneen lu ci des nag ñoom la mais fii lu fi waaye def lu ne boo xalaatee bàmmeel am na rek waroo koo def sa morom doomu aadama wasalaam. maaleykum salaam noo yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. yëg nga couvre-feu day commencé waat tey. waaw waaw yëg nañ ko. noo ko jàngatee ànd nga ci. ah daal mu naa xam ne mun naa xam ne ànd ma ci 100 pour cent quoi parce que heure bu ko defee moo baaxul parce que ñun heure bu ko defee ñun heure boobu la ñuy liggéey en plus gis nga ñun si loolu lañ nekk. bale la ñuy jógee yaa ngi comprendre instant ni vingt une heure te déjà vingt une te des fois ñun ay vingt deux heures la ñuy dugg suñu gaale dañuy jóge si Louga bi ay ay vingt heures lañu fiy quitté te moom nee na vingt une ne fekk nit ñi bàyyi maanaam xam nga fàttuñu ko affaire yooyu noonu léegi xam nga rek loolu duñu arrangé quoi couvre-feu bi moom waroon na ko aj yow ko ba vingt trois heures sax maximum mooy tane quoi mais instant yi nga xam nga rek couvre-feu vingt une heure loolu baaxul arrangé wu leen non arrangé wuñu wax dëgg léegi yow an sa man sama max mu ngi sama poste ma doon julli nii ma doon julli nii mu ngi sama poste moo tax après ah. nga tekki ko waaw moo tax ma tekki ko mu ngi nii dama doon julli. léegi nooy dundee couvre-feu bi sa kër. ah mais xanaa métti rek ah métti rek métti rek wër na yàlla métti kese waaw métti kese parce que boo xoolee tey instant yii ñun xam rek ñun dañuy taabe taabe quoi si loolu la ñuy dund mais tey bu ñu bëgg a tënk yenn yi xam nga comme par exemple vingt et un mois bi da nga fàttu loolu du ñu arrangé quoi ndax ñun heure bu ñu yëngu rek du baax. marié nga wala célibataire. Ah, waaw man marié la. waaw arrangé na marié. mais waxal ñu côté boobu maanaam ci wàllum koppar bi dafa war a ñëw waaw gis nga loolu la quoi. merci ok merci. wa rahmatulah. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. yëg nga ne day démarré waat dina métti loolu sax. parce que Seydina Mohamed. mais Macky Sall dafa def couvre-feu mais xamul lu mu fa demee parce que ñun ñii di dëkk ba géej waaye marché ambulant ñu xëyee Kolda la ñu jëndee bagage nga ñëw jënd ba bagage nga war a dugg si dëkk pare ci client yi 21 heures laal wax embouteillage Pikine foofu la lay fekk te loolu beneen affaire te mënuñ toog liggéeyuñ parce que ay borom njaboot lañ parce que yaakaar ñu suñu ñàkk gis nga ñu gis dafa métti loolu parce que dafa gaaw tamit bala nga pare ci client yi am na client yoo xamante comme ça ñu bëri noonu lañu ma jox la simis ma jox la kii simis ma dem ambila ba pare ma uti bal bi mu war a dagg ma soog dem oto géej waay te oto géej waay balaa ma koy am ba am oto géej waay te oto géej waay oto géej dafa mel soo leen sañoon ñu yóbbu heure bi ba ban heure. bon mun nañu yóbbu ay ba 22h 23h ba tey dina xaw a tane quoi parce que ñun ñibbi banlieue yëpp ay ville la ñuy xëyee waaw fii la ñuy béy suñu yaakaar parce que banlieue mënuñu liggéey foofu parce que bagage yi Colobane la ñu koy amee après ñu dugg si dëkk bi dafa métti loolu sax waaw dafa métti loolu dañuy xoolaat askan bi dafa métti am na ñoo xam te ñu ngi fii dafa dañuy sonn bu dee xool ñoom suñu bopp rek parce que bu ñu xoolee suñu bopp rek dara du dem parce que am na ñoo xam ne seen ñàkk la ñu yaakaar parce que ay borom njaboot lañ parce que bu ñu xoolee weer dee da ngay fay luwaas yónni dëkk boo yónni def lépp te nga bëgg a denc am dara dafa métti loolu sax te dëkk bi demeewul noonu waaw boo gisee zone dem ba benn moment ñu dugg si gaal yi lii moo tax parce que dañu nit am droit am fooy toll boo demee sa bu jeexee lu ne mën nga ko def saa dund barke Seydina Mohamed lu ne mën nga ko def waaw merci beaucoup waaw merci